téléphone. Mm-hmm. nekk ci gars yi ñi sonn ak ñi wàcc ak. ak ñi nga xam ne sax jot nañoo jotuñ jotuñ teer. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ba léegi jotuñ teer. waaw ci gàttal am na loo xam ne dañ ko doon nëbbu mais comme que ñëw nañ ba fii. Mm-hmm. nëbbu amatu fi. ñun bi ñuy jógee fii ñu ngi doonoon quarante et un personnes moo teer dax la ana ñu ci des ñi may wax ñu ngi nii ñoo bokk gaal ñii di dee ñu leen di gis nii jaxran man su ma fekkee li may wax waxuma dëgg am na ñu may témoigné ñu ngi fii ñiy dee nekk ci gaal gi ñaari fan ñu xam ne lii mi ngi bëgg ëpp loxo ñuy sànni sa moroomu jullit koo xam ne nii yéen a nekkandoo woon mu dem ba dem ngeen toog nii dem ba kii xiif mar rafle toog ñetti fan xaw ma ñeenti fan yoo xam ne lekkuñu naanuñu kenn xamatul lan la ñu nuuru yow da ngay dem ba xam ne li ngay def nii ay milliards yi milliards jaru ko lu àdduna li ci biir jaru ko te am na si ñoo xam ne nii ñoo àgg Espagne di vidéo di woote naan gars yi ñëw leen ñëw leen fii dara nekku fi ñooñu ñoo andi affaire yi. Mhm. ñooñu ñoo war a wax dëgg te waxuñ dëgg. Mhm. man nag li may wax nii bu doon sama sago. Mhm. média laay dem. parce que damaa yor ay preuve yoo xam ne nii télé boo ko amoon boo ko lancé déggoo li ma la wax de. ku ko dégg wala ku ko gis dina xam ne nii lii c'est la vérité te man am naa possibilité taxaw wax. génn samay përëm ne lii maa ko enregistré lii maa duggoon ci gaa gi lii maa ko fekkee. Mhm. maa ko teewee. déggoo li ma la wax de. 41 personnes nga teer 29 personnes. dax la ana ñu si des dañoo sànni ba sonn dañoo sànni ba sonn barki alxuraan barki Serigne Saliou nga dem ba xam ne lii dara jaru ko am na ñoo xam ne bi ñuy dem tàgguwuñ seen waajur. am na ñoo xam ne bi ñuy dem seen waajur ñoo leen jox paas am na su ñoo xam ne nii seen waajur amaana sax dañoo jaay seen matériel dem. te à cause de li ñu li ñu yaakaaroon nekkut Europe man def naa fa soo déggee ma ne la man damaa war a wax man def naa Europe damay wax espagnol comme ni may waxee olof mais ku yaakaar ne Europe dangay dem rek tibb ñëwaat ndax nga sa bopp gars dañu war a toog ñi nga xam ne nii xamuñ luy ndox xamuñ li nga xam ne mooy yoonu géej ñu wax leen risques yi si nekk wax leen moor yi si nekk wax leen ñi nga xam ne nii maanaam dañuy dem di tayli seen bakkan te dara dara dara dara jaru ko ci àdduna boo toogee fii nag ñu lay expliquer naa lay yoon bi nii nangam ak sàngam wallaay lazim dañ laa waxul li ci nekk mais xam nga ne ku toog ñetti fan lekkoo naanoo di daw daw boo xam ne xamoo foo jëm ñun bato yi ñu doon romb bato buñ ci romb di la ñaan ndox ñu sax nangoo wuyu parce que à cause de ngelaw biñ tëmbee ba niñ teeree ngelaw moo ñu sonal ñi dee ñëpp da ngay gis koo xam ne nii da dem ba mënatoo ko mun parce que bu yàqoo ci gaa yi da lay sonal te mën naa rey ñi si nekk nga jël ñaanal ko sànni si ndox mi. dawaat tuuti gisaat keneen ko wàccaat nga jëlaat sànni ci ndox mi te ñi nga xam ne nii ñooy tëgg gaal yi ñoom duñ sax yéeg ci gaal yi capitaine yi nga xam ne ñoom ñooy tëgg gaal yi di yóbbu gaal yi duñ sëx yéeg ci gaal yi yàlla xam na li may wax nii ak yeneen tibeeg sëñ Touba man mii di wax a yéen damay dem géej moo laa mais ci sama àdduna dara jaraltuma dara jaral tuma may dugg fii naan damay dem Espagne te pare naa pour liggéey pare naa pour jàppale képp koo xam nii rek da ngaa bëgg pour ndaw ñi retourner pour toog man am naa preuve te xam naa fu ma leen war a jaar te li may wane ku ma ko wan dinga toog boo bëggoon dem sax ci avion sax di nga toog Europe neexut li ñuy daj Europe buñ ko buñ ko toogee fii jaayandi ko fii parki Serigne Saliou dañ ciy génn waa dax la def nañ luñ man parce que xoolal mbooloo mi boo demoon nga xool la fa nekk kenn xamut nu mu toll chaque jour nga bëgg leen jox añ reer ndékki ah ci dëkk boo xam ne yow da nangam ak sàngam kenn xamut waaw ñun ñun ñun dañoo war a sant yàlla donte ne nekkin bi sax gaa metti na parce que bañ fa demee ba léegi mosu ñoo naan lu tàng mburu lañ ñuy jox meew ñu ngi koy sante yàlla amuñ ko woon ci gaal gi. amuñu woon ko amuñu woon ci gaal gi loolu gaal gi gisoo ko la may mburu gisoo ko la may ndox kon boo teeree gis ku lay jox meew ak mburu sante ko yàlla te kenn warul jàmbat sama gars yi dañuy toog sax ñu naan nanga man leen sant leen yàlla xool leen ñu sànni si géej gi man menn man maa fa yoroon téléphone piis piisu marocain ndax biñ teeree gars yi dañ doon lijjanti ay ndox ay lekk ay nangam man xam naa ne ñu jugee fii dañuy tëj am na benn benn naar bu ñu naan Assane moom laa woo ne ko Assane ñun dañoo bëgg a woo suñ famille parce que am nañ six jours ci tey te bu ñu fekkee dañoo yóbbu fële tëj ñu rek duñ duñ mën a déggante suñ famille soo ma dimbali nga lijjantil ma piis moo ma lijjantil piis fi ñu nekkoon yëpp mel na man maa fa yoroon piis képp ku dégg sa famille à cause de boobu moo tax nga dégg sa famille ñii dañu leen woo ne presque fàtte woon nañ leen am na si ñoo xam ne dañ leen doon nëbbu koor yi di leen nëbbu koor yi ba seen famille ñoo woote ne ñu wax leen ñu dëgg ji ñu ñu ñu jëngu wax leen dëgg ji ne leen ah diw de mu dinaa des si géej gi ñoom ñu nangu ko mais comme li ma la wax am na si ñoo xam ne seen koor lañ doon laaj ñii ñu ne leen koor yi yii des na si géej gi yii daal ci ci hôpitalu Daxla bi lañ lañ lañ wàccee waaw mais comme li ma la wax. sama téléphone moo fay mais yaay boobu bu fayoon dama lay génn lépp wan la non non c'est bon on va le faire après kii ngeen naan dafa wàcc am na si koo xam ne mu ngi fii tey wàcc na ci koor yi la bokk maa ngi moom fii kooku dafa karambu sonn na mar na ba bi muy wàcc maa ngi koy caméra billaahi wallaahi tallaahi ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne nii man mënumaa toog di ko wax mais pour lépp comme ci li nga wax rek ñi nga xam ne nii dañoo def seen xel dem parce que am na ñoo xam ne ba léegi ni pareegul ba léegi seen xel mi ngi si Espagne mais autorité bi bu waxee Macky Sall bu waxee keneen ak keneen bu waxee duñ ko déggee noonu dañuy jàpp ne ñii ñoom am nañ la ñuy am lenn mais dafa war a am koo xam ne nii dem na ñëw toog wan leen ay preuve wan leen conséquences yi si nekk. comme man ma ne leen man dem naa ñaar yoon lii at lii moo ci am. képp koo xam ne nii yaa ngi duggaat ci géej bu yeboo nga xool li ngay def. xam naa ne jànguma mais am naa xel moo xam ne nii xam naa fu may jaar ak gars yi ba billaahi képp ku sa nekkoon ci yoonu Espagne bi di nga ko jël toog. def toog suñu réew fexe ko liggéey parce que boo xoolee ñiy dem ñëpp ay ndaw lañ am na si ñoo xam ne nii buñ buñ buñ buñ buñ jàngee xasaay buñ juuxoo ci gaal rek da nga naan déedéet am na ay jeune talent yoo xam ne nii maanaam tey fi tey ñëpp dañoo waroon toog pour tekki ci réew mi comme li madame wax léegi sukkat réew mi xam ne ñun réew mi ñoo ko mën a doxal parce que du mag ñi mag ñi seen wàllu wéy na ñun jeunesse bi ñoo mën a ñoo mën a suqali Sénégal ñoo mën a tax jaayante Sénégal dem marocain boo àggee nga xool leen ñoom la ñuy def nga xam ne ñii tey fi tey seen dëkk dañoo bëgg mu jëm jëm kanam ñoom ñëpp dañoo booloo doon benn di liggéey mais ñun mën nañ ko nañ jaayante dégg parce que bu ñu presse mayee fu ñu dugale man man déggoo man la aw ma sax bu ma sax kenn jox xaalis mhm. mais billaahi wallaahi tallaahi dinaa leen woon ay preuve yoo xam ne wala mu wan leen ay buntu yoo xam ne nii mhm. benn gaal dootul génn Sénégal man xam naa ko après lu si dëng rek man la mais lu si jub ñu